ay mbir tàmbali naa feeñ lu motul weer gannaaw sorti wu patron de stv bi di El Hadj muy tuumal télévision future média buy sundur Ndour ak rakkam bile di Ndiaga ci mbirum piraté fréquence sur satellite gendarmerie daal opposé posé ak tam yu njëkk ci enquête bi Ndiaga Ndour di frère boykat bile di Youssou itam directeur télévision future média daal ñu koy loxo ba placé ko en garde à vue ci brigade de recherche de la gendarmerie Faidherbe Ndiaga njëkkoon nañu ko teewlu àllarba ñaari fan ci weeru juin ak frère bii di Bouba Ndour directeur programme mu télé ba am na tamit yeneeni audition yu ñu defoon ci cadre enquête bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ba muy euh, rek yëkkati ay kàddu ci fête de la musique bi ak anniversaire lancement wu chaîne télé bi El Hadj euh, dafa xamle woon benn système frauduleux de piratage dut si baaraamu tuuma Ndiaga Ndour ne rek euh, ñooy piraté ay fréquence licence ba rek di naviguer illégalement ci satellite bi euh, depuis à 2018 nak nee na ba tey rek euh, li ni mel ñong ko koy def te yegul tinu la euh, piratage yooyee tax na mu perte ay image ci ay xew-xew yu mag yu yañu amal te ñuko don doon rek waré direct ci chaîne de télévision bobé de di 2STV ci noonu nii nak la dal direct rek déposer plainte ci ndoxtelu weeru juin bi ci procureur jëmale ci x depuis bobu nak ak ñu dox tànkub jàmm yëpp El Hadj Ndiaye xamle na ni du mësa rek bàyyi mu jàll te ne sax dina jël revanche am ci président wu conseil d'administration wu groupe Futur Média Youssou Ndour mu mu duut baaraamu tuuma ne it day récupérer ay agent ma ngir lu leer am ci bile mbir El Hadj Ndiaye mi ngi réew doon sàkku tamit ci autorité compétente yi ngir ñu def seen liggéey gannaaw ba mu jàppee ne affaire ba cybercriminalité la ak nag arrestation bu njëkk bu ci am elas Ndiaye remporté na xex bu njëkk bu wara rek feeñal dëgg bi e ci bile mbir. Hallelujah.